asalaamaaleykum mbokku internet yi Touba Info ni war nañ leen ziar leen yéen ñi ñuy topp ba ba léegi gis nañ ne julli nañ jumaa ba pare ci ouverture Masalihul naan ci ndigalul xalif général des Mourides ñu ànd ko ak imam bii di Bassirou Lo njabootu Serigne Touba gi yëpp teew fi ak mboolee mu jullit xam naa damay jël sama micro jox ko taalibe yi ñu wax seen réaction ak nan la ñu dundee eh, bis bi. tey waxuma la dara fi nga xam mooy gul Masaalikul Jinaan fi nga xamante moom lañ koy def ñun bañ nekkee xale juddoo Ndakaaru dañ fa doon jullee mu nekk pàkk boo xam pàkk bu doy waar la woon ndax dañ amoon ñaari pàkk yu ñu doon jullee Ndakaaru muy euh, kër Sëñ Tuubaa gi nekk défoncé ak ak gul bi bii xoolal tey lim ñu ko defal tey li nga xamante ni tey ñi nga xamante ni ñoo yore adduna bi tey muy monopole aduna bi yore économie bi buñ demee tey ba tey ah lu mel ni yoonu murit ba mu sosee yàggul mu incarne lu toll nii tey ay milliards dugg si def ko néego yàlla nga xool tey tubaab bi li ñuy wax ay crise mondiale ndax lan ñoom ñi nga xamante ne tey ñoo yore monopole adduna bi fi adduna bi toll ñoom mun ñu incarne lu mel nii ba nga xamante ne am na ay tubaab yu siy wax nga xamante ne kon lii si islam la te lu koy de demuñu si banque FMI demuñu banque mondiale ñu fenn ay taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk fi ak ñu nekk bitim réew ñoo jël seen alal di ko si def muy seen dërëm ak seen ñaar dërëm ba mu nekk 30 milliards ñu jébal ko ki nga xamante ne mooy sëñ Touba ku mel ni xalifa général di murid muy sëñ Mountakha liggéey ko liggéey bu rafet fekk première paire bi fekkee lépp ba tegaat ko si loxo yi teg ko si loxo Xaadim Rasul Xaadim Rasul jël ko teg ko si loxo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yëkkati teg ko si loxo yàlla tey mooy yëpp tey tase fi si loo xamante ne tey dañuy rafet suñu réew la sëñ Touba ñëpp la bëgg sëñ tubaa ñëpp la jàpp tey boo xoolee tey si bisu tey bi nii tijaan yéeg laayeen yeeg xaadir yeeg ñaseen yéeg ñëpp daanaka sax tey boo xoolee ñu dul jullit sax teew nañ fi tey julli tey man la saay tii subaar ngir jëmm sëñ tubaa Xaadimu Rasuul kon niñ sant suñu borom rek xam ni bis yombul daal euh, ñu ñaan yàlla may ñu fekkee ko ay déwén déwén lii xam naa ne déwén ci lay dàq. Eh, ngir Serigne Touba lim defal waa Ndakaaru tey te lépp jaare ci loxob ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo jur doon murit tax jëf ji xolu xolu Ndakaaru bi mu yëkkati ko jokk seriñ Serigne Touba ñu def jumaa ji toll nii ñun ñëpp ñu mobilisé wu ma ànd wa ànd ko waa UGTEL bu Touba njiit li di Mame Mor Sarr général bu bu Touba. ànd ko ak eh, moromam yi muy àndal yëpp ci UGTEL bi ak les femmes du PDS. ñu jël kaaru 70 places tegaat ci fukki nit ak juróom loolu xam nga ne ngëm-ngëm la ak yéene loolu mooy suñu taxawaay bii tey euh, fii ci euh, jumaa ji nga xam ne Masaalikul Jinaan sa teewaay ci inauguration Masaalikul Jinaan mboolem jullit ci fenn ku nekk jóge na fenn ñëw fii ci inauguration ban yëg-yëg nga fi am. xanaa rek ak mbégte di wax ne bis bu mel ni moom duñ ne mi ngi doon Dakar ñun ñu ngi koy doo gis hmm. ñu. waaw benn jóge dikkee ci bis bi daal di ko dalee waajal ba léegi. sëñ bi jóge tubaa ñëw Ndakaaru ñëw Ndakaaru ba léegi ñu ngi doog gis bis yu mel nii moom gisatuñ gudd feneen nag boobaak ngi sant nag bu baax baax bi ñu yàlla dogalee ñu fekke bis bu mel nii ñu ngi sant yàlla ba di sant Serigne Touba bu baax nag di ci sant Serigne bu baax a baax a baax léegi bu baax a baax li ma wax léegi rek mbégte laa ci bu baax a baax ndaxte jumaa buñ ko ubbee la dañ ne jumaa yi julli jumaa yi murid rek la dañ ne jumaa rek ko jinaan buñ ko ubbee kon dañ ne rek jumaa la mbooleem jullit yëpp rek ci lañ bokk amul murid amul tijaan amul xaadir amul layen képp ku ne asalaamaaleykum laa ilaaha illallaah rek ci lépp jumaa ji nga bokk. xamante ne tey Alboury Sëñ Tuubaa nga bëgg bi nga xamante ne tey moom moo liggéey liggéey bu mel nii ñu jaare ko di sant suñu maam jaar Bousso jaaratullaa li nga xamante ne mooy jigéen mu taxawaay taxawaay bu rafet mooy maam jaara maam jaara bi nga xamante ni tey moo ñu indil ki nga xamante mooy xaadim rasool muy suñu yaakaar tey ëllëg tey nga xamante ni tey li tubaab bi bëggoon mooy fexe ba nga xamante ni lépp lu yàlla tegoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bu sell bi euh, tubaab bi ndërmeel ko ki nga xamante ni tey mooy suñ tubaa tey mu jàmmarloo ak tubaab bi loolu ma juróom-ñaari weer juróom at ak juróom-ñetti weer ñu war ko màggal tey damay wax at bi weer weer bi ñaari màggal la sëñ Touba moom la murid yi am muy màggalu Touba bi ñu war a dem nii di commencé si safar bi ak li nga xam mooy ubbite jumaa ji tey Touba moo jigéen Ndakaaru ñëw tey waa Ndakaaru tamit jëloo jëloo njukkal waa Touba ndax tey foo dem si kër yi ak këru Ndakaaru nu mu xatee ak ak bernde yi foo ne tey adduna bi yëpp tey bëgg nañu képp koo xamante ne noonu euh, noonu noonu euh, kii lislaam nga tey sa xol seddul ndax tey lii nga xamante ne tey moom la lañ incarné tey la islamique bi képp koo xamante ne jullit nga muy wër adduna bi tey bëgg nga soxna si dañ leen di ñaanal li nga xam ne mooy Touba Info yàlla may ba ngeen am ay télé yi télé ba li ngeen bëgg si biir tele bi ngeen am ko. mbégte l'islam yëpp la sant nañ sëñ bu baax a baax a baax a baax Cheikh Khadim naa la xamal la Thiès moom kenn desu fa waxutuma laa Thiès mais États-Unis d'Amérique Europe Asie fépp la doomu aadama jóge ñëw fii baax Cheikh Khadim gi rek moo ñu taxoon a jóg ak Serigne Touba waaw bu rafet nag mbooloo mi bari na trop li moo lay wan ni mbirum sëñ Tuubaa moom dara du si ndaw amaan na jëf jël rek lañ si wax lu si waaye jëf tey di ko jëfaat déwén te buñ sañoon lii nii doon màggal gi nga xam te ni mooy doon màggal gu mel ni comme ah, ma sañoon du jeex ah. parce que affaire bi moom wax dëgg fa yàlla ni ñu ko bëggee woon lépp waaw dañ ñaan sax ne ëpp na loxo noonu te mbirum sëñ Tuubaa dañ ñaan du yem du yem rek waaw ñu leen ñaan na trop yéen a ngi wane tey li ngeen di dund si dëkk bi lépp. yëg-yëg bi xanaa kontaan rek. Eh, di dolli di sant yàlla. jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne lii lépp eh, sëñ Touba la sëñ Touba moom tànki kanam rek mais amul eh, tànk ginnaaw ku gis mbooloo mu fi nekk nii tey waaye ñu doole ko sant yàlla ndax li xalifa bi wax dégg ko nee na jumaa bi jumaa jullit yëpp la ne ci ñëpp jàpp ñu àndaloo nekk benn jullit yi ñëpp benn lañu. lii xéewalu sëñ tey ku fi ñëw taxaw a xam ne sëñ yàlla fay na ko li mu ko la desalu ko daal lii at bu nekk la màggal la at bu nekk ba keroog yowmal xiyaam at bu nekk la at bu nekk la te at bu nekk day gën a yaatu le 27 septembre bu nekk dañ koy màggal fii si Ndakaaru ci Masaalikul Jinaan suba nax mooy annuel bi na ngeen fexe yéen bi ngeen ñëw fekkee ko ca Masaalikul Jinaan jànkat yëpp dinañ fa teew jërëjëf soxna si yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla defal yërmande ak xéwal barsi tey lii lañ leen andiloon euh, nekk euh, le 27 septembre 2019 tombé ak bésub ajuma nekk inauguration Masaalikul Jinaan ñu gis ne euh, Serigne Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér ñëw na andi fi ak njabootu Serigne Touba gi yëpp ak bépp tarixa moo xam Tijaan Murit Xaadir Laayeen ñëpp seen xol yi fees na seen xol yi kontaan nañ daal maanaam l'islam amatina ndam comme ni ko sama papa ji waxee reportage ndax bés bi moo demee noonu